asalaamaaleykum wa rahmatulah ñi ngi nuyu mboole mbooloo mi fi teew yëpp ah ñi ngi wax nag ci turu euh, député rawatina député yeewi askan bi ah li ñuy def nag mooy di ñaaw di nga xamal di nga xamante ne si na moo nekk ci réew mi réew moo xamante ne si ne topp opposition di leen foqatal di leen mettital kenn du wax kenn du sottat président Macky Sall ñu ngi koy xamal ne ko boo xoolee ndaje mii ay jeunes ñoo fi nekk jeunes yi engagé wu jeunes yi déterminé wu jeunes yoo xamante ne si ne dara du tax ñu reculer lu ñu bëgg mooy changement ñun ñëpp loolu tax ñu engagé wu te incha allahu rabbi dañu fas yéene di wéyal di gën a ngir suñu réew mi di Sénégal changement am fi ndax Sénégal dafa nekk réew moo xam ne askan wi dañoo sonn dund bi cher na Euh, ñëpp a sonn ñun ñi lekk ñu naanuñu ñun ñaa ngi bëgg a dee loolu moo tax ñu jeunes yi ñu engagé wu ñu ngi koy ñaan nag suñu détenu politique yi ñu libéré leen ndax Sénégal dafa nekk pays boo xam ne c'est un pays démocratique dañu am ay liberté yoo xam ne dañ ñu ko war a euh, dañ ko war a respecté ñu ngi ñaan suñu frère yi nga xamante ne si ñu ngi tëdd ci kaso yi ku ci mel ne Pape Mamadou Seck ku ci nekk ku ci mel ne Pape euh, Papito Koran papito kara ku ci nekk suñu sœur euh, ku ci mel ne suñu sœur amidia ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi leen di ñaan ñu libéré leen ay borom kër lañ ay mère de famille lañ seen famille dañ leen a soxla ñu jël leen tëj leen ci kaso yi vraiment ñëpp ñu koy ñaaw kon ñi ngi ñaan suñu dëkk à ce que suñu détenus politiques yi nañ leen libéré il faut qu'on les libère te incha allahu rabbi le combat continue je vous remercie jërëjëf et je m'en prie aussi pour ñu sant di gërëm ñi nga xamante ne ñoo doon bépp député Yewwi Askan bu fi toog sama gars ñu ngi ci jëppandaw bi de ñu ngi jox Ousmane Sarr mu wax ak yéen ci kanam ay coach waaye suñ ko tuddee du ñu jox kële boor seet ñu waxtaan ak yéen ci yàlla may nasaraan waaye balaa daa ngeen ciy jóge dinañ leen jox le prochain itinéraire dinañ leen def commentaire bu doon tawee jërë ngeen jëf ñu ngi rafetlu seen teewaay donc teewaay bi am na solo comme ni ngeen ko yàgg a defee teewaay bi nag yaakaar naa ne teewalu leen ko ni def mais seen bopp ngeen fi teewal parce damay wax ma ne fekk ñi ngi ne fekk jàppuñu sama mbokk wala ku ma jege du ma génn ma mars jàppal ne un jour viendra ñëw jàppale te boobaa di nga bëgg ku génn xeexal la kon ku nekk si ñun même bu fekkee ne jàpp ñu ku la jege sax war nga génn di ñëw si combat yi ngir symboliser ko ngir Macky Sall xam ne askan bi pare nañ beneen bi si topp nag mooy yéen ñëpp gis ngeen ne Abdou Karim Gueye ak Cheikh Oumar Diagne bi ñu leen jàppee si kaso beeg léegi ëpp na 3 mois ginnaaw bi nag avocat yi dugal nañ li nga xamante ne nii moom mooy demande liberté provisoire mais dañu gis ne doyen des juges daf ko récité te avant loolu mu koy récité parquet bi daf ko bloqué pendant deux semaines yoo xamante ni nii waxuñu leen ba xam dañ leen koy mayam déet te ñun dañu amoon ay information que ne dossier boobu noonu Macky Sall en personne moom moo ko bloqué woon ngir maintenir Abdou Karim si ak Cheikh Omar kaso bi parce que il faut ngeen xam ne Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne dañu nekk ñaar ñoo xamante ni nii du rek la libérer Sénégal wala injustice mais aussi dañu nekk ñoo xam ne dañuy xeex pour ay principe maanaam suñu ay valeur dañuy xeex pour góor jigéen yi dañuy xeex pour franc-maçon dañuy xeex pour monte bi nga xam ne mu ngi am ci dëkk bi xam ngeen ne bu buñ fi nekkoon li am démb King Fahd Palace barki démb bu ñu fi nekkoon ñoom dañuy jug ñu biral seen baat sa kaw pour xeex loolu noonu léegi nag moo tax Macky Sall bëgg ko ne di leen maintenir si kaso bi te jaay doole ko teg te lu dëgg du ne leen libéré may wax askan bi ne leen bay boo ku nekk si ñun na pare ku nekk si ñun na préparé xam ne fi ñu jëm ak Macky Sall du neex fi ñu jëm ak Macky Sall nekkatul ay ñëw rek mars dox ba fii ñu taxaw di lay kàddu mais fi ñu jëm ak moom mooy ñu wàcc jàmbaar la moom parce que nag munoo yor réew réew mi pendant dix ans nga yor koo dëkk bi mënul fexe ba développé nga dolli si di détourné ñu alal ba pare nekk di jàpp ay doomu sénégalais di leen tëj si kaso bi loolu nag yaakaar naa combat boobu noonu pour ñu Macky Sall jusqu'à bout nekkatul ay combat pacifique mais comme lépp loo xam ne laaj ko comme moom dafa dëgër bopp du bàyyi nañu dem moom ci lu mu bëgg ngir mu libéré ñi nga xamante ni jàpp na leen ci kaso bi. barki démb gis ngeen ko bu taxaw ne li nga xam moom mooy troisième mandat bi nekkatul débat juridique mais débat bi mooy moom mooy xool ba xam daf koy def wala du ko def waaye yéen Macky Sall la yëpp Macky Sall kan la yëpp. naan mag troisième mandat dëggatul débat juridique te moom moom moo defaraat constitution bi article 27 wax na nii ne peut excéder plus de deux mandats consécutifs Macky Sall dem ba états si moom la dépendre ba xam daf koy defam du def dama ne yéen askanu Sénégal est-ce que mandat xeex ak Macky Sall bu leen dama ne sénégalais yi bu ñu kenn dugal ci ay débat yoo xam ne nañu bëgg jàmm parce que jàmm mënul weesu ñu jox Macky Sall suñu réew ne ko doxalal teguñu ko benn pression malgré rek doxalalul ba pare muy détourné suñu alal ba pare bëgg a forcer troisième candidature képp ku leen di wax naan leen na ngeen bëgg jàmm di leen def discours jàmm di dox ci jàmm jàmm ji ki yor caabi jàmm ji mooy Macky ne doxal na jàmm ñu dem ak moom ci jàmm bu fekkee nag doxalul jàmm ñu dem ak moom ci lim bëgg parce que combat bi du ñu seetaan li ñu xeex beeg ci fii nii ay nit dee pour troisième candidature en 2011 Mamadou Diop bi muy dee fii bras de ngi fi suur boobu noonu bi nga xamante ni affaire yi tàng na Macky Sall dafa daw laqatu si kër yi nekk wetu bras de l'opposition est kooku noonu nag bu taxawee tey naan moom mooy xool ba xam da ngay defam du ko def parce que dafa yëpp yi parce que respecté yi moo tax Sénégalais yi pare leen xam ne fii jóg Macky Sall du yomb nekkatul combat pacifique mais combat la boo xam ne pour fexe ba Sénégal képp koo xam ne ñëw nga ëllëg nga respecté constitution bi def ñaari mandat dem sa yoon te ñu ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci kaso bi te ñaari député yi nga xam ne ñoom lañ mujjee jàpp parce que dañu d' accord ñu ci nit di dóor nit kenn d' accord aussi bu fekkee ne ànd ak ñoom ñu ngi taxaw assemblée nationale di xas ay kilifa diine di leen saaga di leen wax lu leen neex kenn wax dara te ku réaction la ñu jàppale tëj si kaso bi loolu du dëgg du ñoom dëggoo dëgg nañu libéré ñi nga xam ne jàpp na leen si kaso bi daa ngeen jëf. libéré Macky Sall. dictateur Macky Sall. Taïga euh, Taïga. waaw bu ñu def tuuti ambiance balaa kii la doon dina. dëgg la damaa bëgg ñu dem kii bi doon waaw peut-être un Clédor qui va tenir le discours officiel en français du collectif pour la libération des détenus politiques. Encore une fois, je m'en profite ñu ngi di gërëm bépp personnalité politique bépp personnalité de la société civile bu fi teew ñun teew tekki